vingt deux ans sa poids ñaata la. cent vingt. cent vingt kilos. waaw. bato. bato client ngi de. <laughs> wuy ma <laughs> day dugg ci bato bi ma la <laughs> da nga koy yóbbu. Ah, yow xam xanaa xamoo ma. ah man xam naa la. waaw ah, kon jeex na man moom xam naa la. kon jeex nañ waaye ñu nga may tegal yi. foo ko jëmee. kan kii. bato bi kay xam nga ne du yëpp sax lu diis. waa ca acca waxal. kii diisul kii diisul. diisul diisul. cent vingt kilos waaye kii bu ma ko yóbbee bato bi sax ci kaw ndox mi lay kii di dem yoonam. du yëg dër benn poids du ko yëg. ah ah yow yow. waa ji kii xaw ma ko mais xam na ma nee na. nee na moom xam na la. waaw kon jeex na. ba bés ba premier combat. waaw ah, bii mooy sama ok Bato ñaata combat nga defagum yow. man mooy sama bii mooy sama deuxième combat. ci bëre dóor bi. waaw ginnaaw li traditionnel bi. waaw waa kay euh, kon ñaanto yaakaar naa ne bii mooy sa premier combat. nga laaj Bato Sénégal. Ah, mbaa euh, dina dina am safara. combat ah? Bato baax na ah. day wax waxam rek dégg nañ ñu ne kii day wax waxam kii mënu maa yëngal. waaw yoo xam ne moo wax jërëjëf euh, bato Sénégal ak euh, ñanco defe naa ne ay mbër yoo xam ne euh, comme ni ñu avaare ci wax ragal naa ne bëri bu métti lañ nar a bëri ndax mbër mu la gën a néew wax ñaare day mën a bëri kon yaakaar naa ne ñooñu ñooy bëree troisième komba bi ñëw nag ci li nga xam ne mooy quatre troisième combat bi Abdou Diouf na na tey na fay portable bi voilà na fay portable bi diggante Fodé Doussouba joxal ma Fodé voilà Fodé euh, diggante ma xaadim Samb anu xaadim xaadim Samb voilà xaadim xaadim Samb euh, day doog a ñëw bu ko defee moom it euh, voilà ñëw leen ñëw leen yéen ñaar ñëw leen ci biir digg bi yéen ñaar voilà tegal siis bi ñëw leen yéen ñaar voilà jox ko micro voilà ñaar ñooñu ñoo war a bëre diggante du suba ak xaadim Samb xaadim mii nag du sama xaadim du xaadim ba bële voilà Khadim Samb ak euh, ki nga xam ne mooy du suba euh, Fodé euh, yaakaar naa ne jàkkaarlool ak kii bi voilà sa diggante ak Khadim Samb bii mooy sa ñaata combat Fodé. salaamaaleykum. ñoo ngi nuyu ñu fi teew ñëpp bii mooy sa ñaata komba bi mooy bii mooy sama deuxième combat. sa deuxième combat ci arène. combat ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw salaamaaleykum. ñoo ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di leen ziar di leen baalu àq. di nuyu mbër yi ak sunu waa koñ ñëpp di nuyu nag sama adversaire aussi di nuyu ñi ma fi àndal di nuyu suma papa di ñaanal aussi tamit suma yaay tamit mu ñu yàgg fii lool ba fekkee suma njariñ ba ma mën leen li ma yéene ci man ma defal leen ko mhm. ak euh, ñi nga xam ne ñu may jàppale ñëpp suma ma limee aussi damay damay du ma matal mais maa ngi nuyu ñëpp du suba waaw voilà koo koy fodi du suba voilà kii mooy Fodé Doussouba moo war a dajale Xaadim Samb Xaadim ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay papa. waa kay euh, sa digganteeg euh, Fodé loo ci xam ak euh, boo nuyoo ba pare. waaw gannaaw bala maa nuyoo damay jégalu ci tardement bi. ñu ngi la koy baal. waaw bi la. dëgg la gannaaw ba sant yàlla jiitu Muhammad sallallahu alayhi wasallam maa ngi nuyu sama ñaari waajur. Mm-hmm. di nuyu mun a entier di nuyu Sénégal gépp mm-hmm. di nuyu waa plateau bi yëpp di nuyu pratiquement sama adversaire ak sama grand frère yi ma fekk ci plateau bi. Mm-hmm. maa nuyu sama waa koñ ginnaaw raay caara asir waa Kër Masaar ñëpp. xaadim lan ngay wax Fodé. waaw Fodé loo koy laaj nga ma war a wax. Ah? loo koy laaj. Ah. waaw. dama bëgg nga laaj ko ndax moom jour comment waa dina taxaw. laaj nga ko ko doo wax. Fodé dama bëgg. Ah, da nga doo da nga dul weesu naa fu may ragalee. wax ma la weesu naa fu may ragalee dama la bëgg laaj ndax jour comment waa di nga taxaw. lu tax nga laaj ma ko. ndax di nga taxaw dëgg sa bopp laa lay laaj. man wama lu may ragal laa la wax déggoo ma xanaa déggoo tontu bi de weesu naa fu may ñëwee di jàkkaarloo suma moroomu nit di ko daw yàlla xam na loolu mais ku la gis xam ne ku gis xam ne doo taxaw mbër incha allah ba xam ne taxaw su bis xam loolu taxaw de ah fu jëm kii bu taxaw ñu lëng ko <laughs> yàlla seede na incha allah eh. ci kattun yàlla bu taxawee ñu lëng ko parce hmm? que soobee yàlla mi mayee de waaw dinaa ko toog ci kawam yaay toog ko sama turandoo daan defee photo waaw waaw da ngay laaj laaj bu soobee yàlla ñu fóote naan photo photo noonu nga koy def ku tedd gi sere na loolu xaadim nee na boo taxawee ñu lëng la de yàlla xam na ba ma xoolee xam ne dugg ñu teg sama dënn dënn bi dënn bu bëri toog waaye su ma yow da ngay kii nii rek nga naa may lii dënn bi dënn bi fii rek wala dënn bi xaadim waay su ma ji dama ne la fii nii laay naa dëggoo ma waaw dënn bu ñuy toog waaw dënn buy fëtt ci kaw la dënn buy tëdd su ma yi dama ne la fii laay toog li ma la wax c'est mais mais joxante leen <laughs> loxo. papa. waaw ñu waaw wooteel waaw maa ngi woo sama mbokk yëpp. Uh-huh. di ko dalee ginnaaw raay. Uh-huh. Caare Asir. Uh-huh. Mbatal. Cité Alizé. Kër Massar. Mm. Jaxaay. Mm. Euh, ñàkk rob mm. fépp ñàgg Kaolack di woo sama waa dëkk dëkk bi sama yaay dëkk di waa Kër Mukki di maa ngi woo ñëpp pour ñu jàpp ci combat bi. waaw man ndam ci kaw Fodé du jël bu rëy. waaw man maa ngi suma mbokk parce que sama dëkk laa jëm. Mhm. ndax man falaa laa cosaanoo sama sama sama papa fa la cosaanoo. Mhm. sama beneen euh, sama turandoo fa la cosaan kon man fa dëkk. Mhm. maa ngi woo suma mbokk yëpp ñu ñëw si bis ba jàppale ma. xam na sama combat jëm dama ñaan yàlla mu may ma ci ndam di woon nag suma waa dëkk aussi tamit sama côté yaay. parce que man ko sama côté yaay côté waa Jara waxe la ñoom ñëpp maa ngi leen di oo ñu ñëw jàpp si di ñaanal aussi tamit suma sëriñ mu yàgg fi loolu te wér ak papaam ak kilifaam di góor gu ci ruq ba. jërëjëf joxante ne loxo sama gaay yi pap jërë ngeen jëf. Euh, kon mbokk yi jërë ngeen jëf diggante Xaadim Samba ak Fodé Doussouba mbokk yi ñu dem service commercial dellu si waat Bourgoren. Alliance de crédit et d'épargne pour la production ACET. ñi ko jiite man loolu seen liggéey boole ci fégo ak ay ndaw yu xarañ sawar di leen déglu di leen jàppale di ànd ak yéen di leen xelal ngir seen bépp projet am ndam ak ACET seeni projet ñu ngi ci ay loxo yu wóor mu ngi ci bépp gox ak bërëbam yu bari yi jokkalante leen ak xarala yi gën a bees te mucc ayib di tax bu bépp kiliyaan mën a jëfandikoo guichet ASEP bii ko neex fu mu mënti nekk xarañ gi ASEP àndal tax na ba ngeen di jiitu ci seeni moroom ASEP waaw góor ASEP foog woon ne financement bi dina gaawee nii ASEP kër gi gëna gaaw te gëna a méngoog seeni bëgg-bëgg bi daala yëngatu naa Sampion. une compagnie d'assurance en pleine expansion sur le marché sénégalais au service du développement, spécialiste de l'assurance, dommages aux biens, responsabilités civiles diverses, transport maritime, voyages et santé, risques divers et risques de construction, prévoyance émigrée. La Sénat Assurance présente des atouts majeurs par l'adaptation de ses produits sur mesure à vos besoins, par la proximité avec des agences à Dakar et dans la banlieue, ainsi que dans toutes les capitales régionales, avec une rapidité dans le traitement des dossiers et d'indemnisation des victimes. La Sénat Assurance dispose d'arguments solides pour satisfaire votre demande avec un personnel compétent. Sénat, c'est un label qui sécurise visiter notre site www.cenar.sn.

bi di xalaat nag ah Sall Jawa ay baaxul sa bët yu rëy yow. bu la taw jàppal dama leen ma ko wax kenn. cheval le des bons moments. ma mbokku téléspectateurs yi ginnaaw euh, bu ñu xaajale euh, xaaj bu bu ñu jeexalee xaaj bu njëkk bi euh, ñëw nag ci li nga xam ne moo des ci combat yi nga xam ne combat préliminaire yi ñëw nag ci li nga xam ne nag combat bi ci tegu daanaka grand combat la parce que ñetti grand combat moo ci am parce que boo xoolee ci diggante Pape Fall ak ki nga xam ne mooy Modou Khoule waaye di leen fàttali ne Bruce Lee egsi na mi ngi toog jàkkaarloog Abdou Diouf nga xam ne ñoo war a dem Ziguinchor ñoom ñaar ci kanam tuuti nag xam naa ne diggante bi moom dama leen di xajar rek bàyyi leen ak diggante bi xaw ma dañuy songo xaw ma dañuy roofoo waaye daal ci kanam ku ci ne di nga wax lan ngay yóbbu Ziguinchor euh, pour ganale ko le ministre d'État Abdoulaye Baldé euh, Pape Fall lay nuyu. waaw ngañ maa ngi lay fay. Euh, di la wax sa diggante ak ki nga xam ne mooy Medoune xule Medoune maa ngi lay nuyu. waaw père ñu ngi lay fay. waaw sa diggante Pape Fall yéen ñaar day defe naa ne war ngeen xamante Madoune. waaw Pape xamante nañ bu baax. mos ngeen bëre. waaw yàlla dogal nañu mas a bëre. ku daanoon. waaw yàlla dogal moom moo daanoon. kon revanche ngay wër si. waaw revanche laay jël si waaw. kon revanche luñ si wax. waaw revanche moom comme liñ si wax mooy dem jëli la rek. ah yaakaar naa nit ki moom kuñ jël sa yëf. da mhm. nga xam liñ jël yaa ko moom. soo demee di ko jëliwaat dem jëli la rek. Mhm. waaw dem jëli la. waaw te moom xam na loolu sax. xam na loolu. waaw euh, Pape Fall ginnaaw bi nga nuyoo ba pare. waaw pare mos nuyoo bu ko mhm. xam naa nag ñu bari mu ngi télévision tey nga xaw a jaaxaatorom ndax muy ñëw fi ñu bari yëguñu ko. da nga da nga yoxusu rek. waaw dama yoxusu quoi. waaw. maa ngi sant maa ngi ginnaaw bi sant yàlla ji si yàlla bi maa ngi sant sama ñaari waajur. Mhm. di sant sama sëriñ Cheikh Béthio. waaw Cheikh Béthio sax te wér. amiin nag. man om ma dara lu ma koy wax moom mooy jël ci revanche. bëgg bu làmb jaaree mu ñëw rek. nga koy def. non Pape Fall ku ne xam na ne moom du arrière. da koy delloo lamu yor la yor ci woon wala nooy def. non moom moom xam ne du am dara. ah moom du am dara xam na ko sax barki Serigne Touba. Maroon. waaw comme nuyoo wu ñu ndax. déet nee na doo am dara nuyoo bi kay caloo ko. yow ne da nga am avancé waaw nuyoo bi dina ñëw dañ koy def. doo am dara. waa mais loolu daf ko wax rek. daf ko wax rek. foo ko teg. waaw dañ ni lu ne si kanam. Ah. rawul ay bët. rawul ay bët. waaw. Ah. moom xam nga nee na. Hmm. buñ ko gisee fii. Hmm. dana leen bett. man bu ñu ma gisee fii du leen bett. lu tax li tax mooy yaakaar naa ki nga xam ne guddeeg bëccëg heure boo ko gis mi ngi liggéey. Hmm. di mbër saa bu toogee ci plateau ngay supporteram du la bett te man loolu am. non man waxu wax si yaa ngi dégg kon moom peut-être moom dañuy gis di ko bett te noonu ma doon liggéeyee. Ah. moom laa koy wan ne ko bi bis baa bu xeexee grand ma ko. bu <laughs> bëree ma daan ko xam nga mu koy may sens. waaw mu teel a tëdd. xam nga ne mu wóor na yàlla mi ngi tiim <laughs> billaahi bu teelu tëdd. fi la jaar bàyyi làmb. Fafal. barke Serigne Saliou kii xam ne duma mënuma duma ma làmb nit dama ko duma dama xam maa ngi ci bëgg a yàgg tuuti nag xëy na yàlla moo dogal euh, may bëri meññ ay grand ay ay mbëru grand combat lañ. Uh-huh. am na fu ma jaar ak moom maa ba ñu bëri amul 30 secondes te bii lay gën a dee sax bii du am 5 secondes barke Serigne Saliou. cinq secondes déggoo ma nga daañu ma de. waaw du am cinq secondes. cinq secondes. bu ñëwee dinaa ñëw bu ñëw dinaa ñëw am sax xam na ko. mais cinq secondes ëpp ëpp. dafa ko a bu ne prix maa ci ma ne la. ah cinq secondes kay mooy. mooy tarafatal ay mi xam nga cinq mais mais ma wax luy cinq secondes. mooy tarafatal ay. tarafat mooy loolu rek. waaw di sant sama Modou looy tàggoo li mu li mu wax mën na nekk ndax bu ñëwee teel a tëdd waaw combat bi du yàgg bu ñëwee bu teel a tëdd tëdd rek cinq secondes yi mën naa gaaw yow Pape eh. combat bi ci yow la dépendre yaa ngi dégg tëdd moom mooy am yaay xool na noo ko bëggee <laughs> soo bëggee ñëw ma jàpp la daan la soo ko bëgg eh, ma duma la ba nga tëdd li ma la wax du deñ hmm? li ma la wax du deñ yow bu ma la ne naa la dóor ba nga tëdd ku la xool ku la xool xool ma xam ne dana xool ku ragal ma ak sa bët yi ragal nga yow nañ xool rek gars waaw baax na segam ragal moo dem di fekki nit naa ko kaay jox ma sama revanche sëñ Modou xam na lool man maa soxla yow. yow xam nga ne. maa la soxla.